ñi wax ci coowalu fecckat bile di Ameth Thiou fecckat ba woon nag wala ambianceur woykat bu mag bile di Wally ko Seck di doom ci Thione Seck daa dinay rekk déposé ab benn plaint jëmale ko rek ci animateuru toppkaa bile di Jimbori nekk ca sit bile di Feeling Dakar li silu silu yéenekaay bile nag di Les Échos xamle artiste bi daa dinay saisir division spéciale bu cybersécurité ci benn na plainte ngir rek collecte illicite ak diffusion de données à caractère personnel et diffamation journal bi nag àdduwul ci lan moo waral rek plainte boobule waaye daal li nga xam ne wax nañ ko mooy kaal mooy daal kile di amet Thiou ba daa mer ci doxalin bi nga xam ne Jimbori moom lay def rawatina nag jëmle ko rek ci moom li lañ leen indi loon mbokk internet yi nga xam ne rek yéen ak topp ci Dakar Media TV ñu ngi leen di jox dig daje rek ci yeneen xibaar fii de ci kanam ak